Ajo bulu mambo. Inja wanga e po khil marita. Ate po e nyana nam. Ate po e nyana tabe. Inja wanga e po khil marita. Ate po e nyana tabe. Inja wanga e po khil marita. Ate po e nyana tabe. Inja wanga e po khil

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,

ai boya go dam no dwe bazira pachije dana deve ya kurama mihazira maji ila najibe ya go ya kurama mihazira maji ila na ya go ya kurama mihazira maji ila najibe ya go ya kurama mihazira maji ila na ya go ya kurama mihazira maji ila Ezi ai boya boda amdo mi basi ra pachiye. Ezi boya boda amdo mi basi ra pachiye. Ezi ai boya boda amdo mi basi ra pachiye. Papa se ne ko mwengi ma ga ne ha je bu mu ne. yagi magar biwaje guma gude gopa sere gopa yagi magar biwaje guma gude gopa sere gorma yagi magar biwaje guma gude gopa sere gorma yagi magar biwaje guma gude gopa sere gorma yagi magar biwaje guma gude gopa sere lumagi patare cakariyayo lumagi patare lumagi patare hadi Bapak saya, korban yang jiwa, kami saja gua kulit. Ore baba zere gorba yagi e ngi baatare ndeysaan élément yi. ndeysaan Mbayang en baatare. baatare e na 1 million ndeysaan. un million cinq cent la paatare noonu eh dégg nga dugg ci deux millions de. Kuda jegal sampiyoge. Papa Papa se isaan Sadio lay baatare noonu United ci wax bi dafay ko daf koo ñàkk Bayangol, ma pisi bana, nyale papa, we patobe.

wala fas rek à seet si armée muy préparer combat am tabaski deuxième jour. war a bëre ak ki nga xamante ni Tidiane fay la war a bëreel deuxième jour ci stade Bambey ah. dañ koy bàyyi mu nuyoo. ñu doog a xuus ci waxtaan bi ñu ngi lay nuyu armée waaw maa leen di fay. aùzu billaahi bismillaahi inna wàllu yàlla. Mm-hmm. jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba. Mm-hmm. bu ñu sant yàlla di julli si yonent bi ñuy sant suñu ñaari waajur. di sant àdduna mën nañ cee di sant waa Newraan bi ma dëkk. di sant Bawol gépp di sant Kolobaan bi ma dëkk fii tamit di nuyu waa àdduna di ziar ñëpp di jaajëfal ñëpp di nuyu Ngoy TV di jaajëfal ñëpp. ok acca armée euh, bëgg naa nga yëkkati baat bi tuuti nag mais dañu euh, bu ñu bëggoon xam kan mooy armée balaa ñoo ñëw ci a préparation entraînement yi ak combat bi kan mooy armée ak ñaata combat la armée bëre. waa armée benn xale la rek. Mhm. juddoo Newraan. Mhm. ci dëkk bu ñuy wax Newraan ci Touba Toul. Mhm. nekk xale juddu bëgg làmb mën naa ne li ma gën a tax ma bëgg làmb benn sama benn grand jaag ñu ko doon assurance kooku moo ma dugal ci làmb moo gën a tax ma bëgg làmb en plus ma gis tonnerre nekkoon suñ grand ne ca dëkk ba ñu ko doon topp quoi loolu moo ñu gën a dugal ci làmb Armé nag benn xale bu dëkk Newraan bëri na Bawol neuf combats am naa fa huit victoire benn match nul bëri naa stade fii quatre combats am trois victoire benn défaite waaw ah, macha allah mën nañu xam ndaanaan yi nga xam te ni daan nga leen foofu kenn ci rek wala ñaar. waaw foofu moom champion yi ma fa daan bëri na parce que ñi ma fa daan xaaj bi yëpp man maaleen leen a jox defet mhm. du seen yaafus nag du sama moon xëy na yàlla moo ko dogale noonu ku ci mel ni Pape Mbaye mhm. ay Fodé pompiteer bu tànk bébé si njaan mhm. xam nga ay caatu jolof bu jaam a gën euh, salmon bëri na ay champion champion yu ma yu ma bëreel foofu am ndam ci seen kaw di ko sant yàlla bu baax a baax. kan moo la njëkk a daan. Euh, man kii lagros bu Kër Masar moo daan. sama troisième combat arène. arène ah, arène la la daane arène la ma daane waaw. ok acca ngay dem ci euh, tabaski li ci des bareetul euh, nak ngay entraîner combat bi. waaw combat bi ñu ngi koy pare ak suñuy coach ñu ngi ñuy teg lu metti fajar gi 5 dañ tonné def ñuy yobu géej. Mhm. teg ñu lu metti ñu entraîné bu ñëwee matinal bi ñu ñëw saal 9h ngoon gi tamit ñu ngi ànd ak suñuy ñoom Bouba Alioune Seye gars yëpp ak suñu coach su mag Serou école ba tamit ñuy contact lu wóor en tout cas ñu ngi pare trois séances pour les pour pour yaa ngi entraîné pour trois séances. trois séances waaw. waaw. Ah. aca des ay fan yu néew. ah ngay préparé grand combat di dajeeg xele bu bari coow nag lan nga ñu mën a wax ci Tidiane Faye. waaw Tidiane Faye mbër la champion la comme sampion yi rek. Mhm. ndaanaan la parce que man képp ku jël sama avance rek dama jàpp na sampion nga. ndax rawuma ko laaju ma ko aussi moom tamit xëy na jàpp naa ne laaju ma mais lamb moo ñu boole. te grand combat du ay caaxaan. di ko wax ne waa Bambey moom nañ ma xaar rek. waaw. mos nga bëre Bambey. noo Bambey mosuma fa bëre nag mais ñëw naa foofu. naka ngay ñëwee suur boobu. waaw jour boobu moom dina ñëw ci anam bu doy waar. Ah. waaw. tonnerre ni mu doon ñëwee côté boobu nu ko raw dina ñëwee foofu. ah bon tout cas ku bëgg a gis ambiance ak lu rey loo mosul gis ci làmb ah. xaaral armée bu newraan xaar ko Bambey. di nga gis lu yéeme. incha allah waaw. ok acca euh, looy wax Tidiane fay waaw Tidiane li ma koy wax mooy maa ngi koy sant di ko gërëm rek. di ko ñaanal jàmm ak tawféex. Mhm. comme moo nangoo jël sama avance côté boobu moom rafle woon naa ko foofu quoi. ah da nga woon ku jël sa woon naa ko jël sama avance ma sant ko bu baax baax a baax nag. parce que aussi ndaanan la nag. Mhm. Tidiane champion la. Mhm. ndaanan bu mag mag la. day def lépp mais nag na xam ne am na bés. Tidiane am na bés bu mag a mag a mag xew la am xew. Ah. amul combat xew la am. xew la am waaw te bu ma dugsee Bambey di dina la déglu wax ko ko. bu ma dugsee Bambey dina xam ne xew la am. Ah. waaw amul lamb xew la am sooke bi lay taseel. léegi yow loo na a def da ngay xeex wala da ngay bëre. lamb ji moom lépp la lu mu laaj rek dinañ ko def mais en tout cas séntu leen ci xeex bu metti ah. waaw. ah am na ku ma yóbbante. waaw ku ko jege la. tey la ma woo dégg na yow laa jël si mu ne lu mu ànd ci xeex doyul lu mu ànd ci bëre doyul loo koy tontu. non ko supporter wala lan la. ah man daal def ma woon ne ma day da ngay jëli arme sa waaye suba laa koy jëli mu ne ma ne ko tey laa koy jëli mu ne ma wax ko loolu. ko bu doon Tidiane daal dinaa ko tontu mais comme supporter la naa ko bay gaay mais Tidiane léegi loo ko yóbbante moom Tidiane. non supporter moo ma yab mais Tidiane du ma yab. ah waaw xam nga supporter moom ñiy wax ñe mënoo leen tontu. waaw mais Tidiane du ma moom. Hmm. waaw. bu la andilee xeex bu métti du la yab. xeex day am par force. Ah? mënu ci dara. bambe dañuy xeex ba ted, bëre si wu ma sax ak moom. day xeex si damay xeex bu ma la nee damay xeex na li tax mu wax ko. ah bon. billaay walaay talaay soxlawu ci bëre bi dara dara dara dara damay taxaw xeex ak moom. Hmm. waaw. ah dina la dégg de to dina la tontu. to Ngoy TV itam mu nga fa incha allahu rabbi aca mu ngi noonu sa gars yi aca joxal jàmbaar añu jël si waat ci yow bëgg leen di. maa ngi lay mhm. di bëgg ñëpp di. ziar tund Bambey. di ziar ñëpp di ziar waa di la bëggee suñu waay suñu la soxlaa jóg. dëgg la ñëw ànd ak ñun si lépp lu ñuy def. ànd si liggéey bi. suñu rax la. suñu lépp la. mun nañ ne nag combat bi ñun ñoo ko dox ñoo ko taxawal. parce que ñun ñoo ko tëgg quoi. mais armée suñu rakk la. suñu lépp la. ñoo bokk même fu ñuy yeewoo nekk tamit suñu rakk bu ñu déggal. nekk champion tamit. Tidiane tamit ndaanaan la. xam nañ ko moo tax ñu boole ko ak armée nag ragal péré day xañe wërsëg ñun moom armée lañu àndal ñun moom armée bu doon bëri suñu rakk buñ bokkal ndey ba armée la ñuy àndal parce que suñu rakk la mais nag Tidiane na xam nañ nu bés quoi parce que ñun luñ ko teg da koy tegoo dañ koy teg lu métti barke Serigne Bamba lu méttee métti te Tidiane moo ko di nga xamante ne nii coow rek moo leen boole mais lamb boole wu leen déet maa lay wax lu yéeme nag ah. war na yàlla bokkuñ sax ñoom ñaar Tidiane daanaan la nag mhm. mais bokkut ak kii nii bilaay bu la kii nee dina xeex ak moom rek dina xeex moom. Ah. kii bokkut ak mbëri naan damay xeex ñëw bëre de. Hmm. su ñëwee day xeex ak moom. ah top 5 de Ngoye TV. bilaay walaay gën a njëkk li ma la wax. waaw. xam nga dafa am mbër ma fekkee Bambey dama day duma booy bi. waaw koo duma. mais kii day duma Tidiane. Ah? ñoom ñaar bokkuñ sax. làmb sax boolewu leen. Ah. mais dañu xam ne bu ñu dajee bamba coow li dina neex quoi moo tax ñu boole leen. ok di ko ñaanal ndam nag. Mm-hmm. di ko ñaanal ndam lu rëy rëy rëy parce que borom xol bu rafet la borom baax la Bambey dañ fa ànd ak tonnerre mu ñëw fa première ñëwam mhm. mu def fa lu yéeme mhm. Bambey li ñu fa mës a teg tonnerre jël na ko mhm. kon kii nii du fa ñëw tonnerre def ba pare mu koy xajamal non non Bambey tonnerre ak Kogna dañ faa marqué seen empreinte te ñun bii mooy premier duggam moom tamit tonnerre première duggam nag la fa jël kon kii première duggam top 5 la fay am maa la wax loolu di ko ñaanal ndam moom armée di ñaanal tamit sama rakk sama doomu nijaay sama deret lakkale. di ko ñaanal ndam lu rëy rëy rëy ci Konkeel Joon. loolu sama xol laa ko tibbee. yal na ko yàlla may ndam lu rëy. incha allah Seydina Mouhamed ñoom ñaar incha allah. acca mu ngi noonu joxal ndaanaan mais foofu la ñuy jaar ah, siyaare Serigne Alla borom Bambey ah moom itam borom kàng bi ñu ngi lay bëggee bu baax a baax baax xam naa bàyyi woo booy te yow it ba ñun itam bàyyi woo ñu acca ndaanaan maa ngi lay ziar. bëggewaat naa la lu bëri lépp jàmm de. di santaat yàlla bu baax di julli ci ah. bi. acca ñu gis sa muy entraîné lu doy waar di préparer tabaski ana lan nga koy wax. waaw moom liñ koy wax bëriwul. ndax euh, moom doomu ñaay la. Hmm? doomu ñaay kenn du ko ñaanal rek gudd fan rek lañ koy ñaanal rek lañ koy ñaanal de. waaw parce que am nañ yaakaar daal ci moom. Hmm. te dafa nangu. te boo nangoo pour nga jàll day yomb. Hmm. waaw nekkul booy bu dëgër bopp quoi. dañ koy ñaanal ndam ci combat bi rek yalla may ko ci ndam bu set guy euh, li ñu wara a liggéey nag ñu koy liggéey waaw yaakar na li ci dess bëreetul ci ay réglage la tolu fi mu toll ni ay réglage mais di ko ñaanal wër tamit di ñaanal wër di wax euh, Néwraan nañ ko jappalé parce que boy la te mi ngi yoon comprendre nga té lamb dañ na mbolo te tay li tax ñi ñuy teg ñun mbër du ñun ñi ci suñu ginnaaw la ku néew ginnaaw doo bëri ay combat mais boo boo amee ginnaaw rek bëri ay combat kon ñu ngi koy ñaanal yàlla mi am ndam yàlla na ko yàlla may ndam mi ngi entraîné lu métti nag mi ngi daj lu méttee méttee méttee nag comme li la waa ji wax rek Khalil moom am na combat coowu lam moo leen boole barke sëñ Fallou sa waaye adversaire bu ne utal nañ ko ko ci bi tabaski bi waaj ah mais mënul am combat comprendre nga moom biñ ko nee man bi mu ñëwee wax ma ko dafa dama ko xaw ma man bëri naa Bambey ba nii mooy toll mosuma mosuma dégg tur xaw ma ko quoi masuma ko gis xamee wu ma ko comprendre nga bu baax mais tey bu demee ba jël ko bëgg a bëre moo tax mu jël ko mais jàpp naa ne làmb kiiwu leen Tidiane nag champion la champion la parce que moom mi mbër mi moo ma ne tiijaan champion la bëri na fii ak fii ak fii comprendre nga xëj na ñoom moom moo ma gën a xam kooku quoi waaw di ko ñaanal ndam tamit. mais li mu ne loolu lay andi suuru lam ja bëggul bëre day xeex si est ce que yow mi coach an nga ci ak moom mu ñëw sam xeex. no xam nga conducteur moom. waaw. Hmm? bu toogee ci volant di dawal. Hmm? boo ko wooloo lu mu daw yow du la déranger. dëgg la te kii dama ko wóolu. lu mu ne lii laay def rek man gëm naa loolu. Hmm. waaw bu dee bi bëre bi am na ko bu dee xeex bi am na ko mais kii xam naa ne ah, foofu ci tundu Bambey mhm. ci booy yooyu ku ci ñemee taxaw moom di xeex amul ah ku ko def wari ah. wallaahi ku ko ci def wari taxaw jaaga jaag rek waaw ku ko ci def di nga wari ah. loolu man moom xam naa ko waaw kon Bambey nañ ñu xaar incha allah ba xam ne ambiance ñooy borom uh-huh. stade Bambey di nga fa gis loo mës a gis ah ci mobilisation ci mobilisation ci animation lépp di nga ko gis ci bëre daan ñibbi ok waaw bëre lan ngay wax woon ak sama booy Jakarta yi nekk Bambey yëpp sama mafia bi am foofu mafia boo xam spécial bu ma mosaa jóg Bambey Bambey def naa fa lu ay duudu xat yi ay ay kii booy yi nu mu sax ay duudu duudu ak booy boobu booy boobu dekk euh, bébé daaru bébé daaru booy yooyu waaw jeexal naa leen ci àll boobu ah ci genn guddi assez ah, guwaar nga ci génn guddi eh, yàlla xam na ko bilaay mais di ñaanal euh, site bi tamit. Ngoy TV Ngoy TV. Mm. xam dem si kanam. incha allah dem ba doon tele amiin waaw ndax lii dafa am solo quoi. parce que mbëri ndaw yi fii la ñuy commencé quoi. non ñoom lañ am. waaw di ñaanal mbër mi. Mm. ah. mu noonu acca mbër dégg nga sa gars yi lu ñu wax ci yow de. waaw comme li la sawaay wax rek. waaw maanaam doomu ñaay moom. Mhm. ñaanal ko rey quoi ñaanal ko gudd fan mais jarul ñaanal ko rëy. Mhm. parce que rey na ba noppi te bu guddee fan day rëy. dëgg la waaw Tidiane lamb léegi nag daam am combat yoo xam ne coow moo leen di boole. Mhm. yi WhatsApp yi groupe xam nga yi TikTok yi affaire yooyu noonu. mais Tidiane man ak moom ci diggéew bi rek xam naa ne lamb boole wuñ. Ah. waaw te bu arbitre génnee suñu diggante Bambey dinañ xam ne lamb boole wuñ. te ku bëgg a gis xeex ñëwal xaar ma Bambey. te je la né damay xeex ak mom amna lutax wax ko Je bi duma bi du sax ñëw Bambey la koy bay yow la wala ay mbokku Tidiane la armée ñëwul pour venu ci ci wu ma armée préparer combat am ñëw dem ko dem ñibi gaay nañ la <laughs> légui armée promoteur bi tek lam ji ay euh, promoteur na tunu Bawol bi sax wax quoi def seen association tegal leen ay combat yu toll nii mobilisation bi nan nga ko nar a defee suur boobu ak lan ngay wax promoteur bi itam. waa promoteur bi mbay production maa ngi koy sant bu baax a baax a baax maa ngi koy sant di ko gërëm parce que tegal la grand combat yombul ndax jamono ji gis nga lamb ji xat na da ngay bëgg a bëre doo bëre mais yàlla suturaal nañ ba ñun dañu toog mu contacter ñu jox ñu combat maa ngi koy sant mook estafam yëpp xam nga ñoom Alioune maam ñoom Aliou Tafa Bousso Bali gaa yëpp ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax. walu mobilisation bi nag di leen wax mbër yi mbër yi war a bëri ci jour boobu noonu. bu ngeen yóbboo une ngeen dem seet fu ngeen toog. waaw li ah. dale premier combat ba ci Tidiane moom. Hmm. nañ teel a ñëw seet fuñ toog balaa armée dugg si. waa Néewraan bu ñu ñëwee bu ñu xasee dugg keneen du dugg. li ma la wax enregistré ko foofu noonu. moom kañ mu ngi génn. mobilisation bu garaaw di nga ko gis. waaw di wax sama mafia bi rek nekk Bambey nag supporters yi. Mhm. mafia Jakarta bi. Mhm. nañu ma xaar. Mhm. ñoom Maas. ñoom Aliou. Waly xam nga gars yi Jakarta yi nekk foofu ñoom Bas Ibra. gars yëpp dama bëgg ñu defal ma convent xaar ma buntu Bambey. ndax xam naa ne convent bi jóge Newraan bu fekkee bu Bambey bi di nga gis lu garaaw. déedéet kay wallaahi la est-ce que man du ma ñëw foofu sax départ bi jël si ko. non départ bi ku ko tardé jarul ngay dem. làmb ah ji bu seb armé moom. <laughs> Ah. booy ñu ngi pare bu baax a Newraan instant nii nii ñëpp. ñëpp pare nañ. di wax supporteru Tapha Mbeur Tapha Mbeur sama doomu ndey. Mhm. di wax supporteram yëpp nañ ma xaar aussi. fan si club bi yëpp maa leen di woo ñëw taxawu ci bés bi. Mhm. a wooy yow mosul dégg ci supporter bëre ñëwal xaar armée bu newraan xaar ko Bambey newraan gépp pare nañ tubaatul bépp pare nañ pour dugg Bambey aca mu ngi noonu aca gaa yëpp pare nañu ah daa léegi dañ lay bàyyi nga woo gaa yi nag ñi lay jàppale ci combat bi nga woo leen sant leen ah woo monsieur maire gaa yëpp daal ñu ñëw ah ñi lay jàppale tout après ñu tàggatoo non lamb jooju ma ak tiijaan mënul ñàkk a neex Hmm. force day neex. waaw parce que. lan moo tax muy neex. nee nañ moom dafa mën a bëre. waaw te man damaa mën a bëre. te man damaa mën a xeex. Hmm. te moom dafa mën a xeex. moo tax dama bëgg ñu xeex. bëre. bu Bambey gépp xam ba promoteur bi kontaan ci ñun amateur yi kontaan supporters yi ñëpp bëgg. ndax ñaari sooke la boole kon lamb ji daa war a neex. cay Ngoy TV Ngoy TV nar a am problème. xam naa ku daan damay ànd ak yow ba sa kër. lepp lu ngeen waxon nag mu ngi fi kon newran ak ku daanu dina la ko tegal kon ngay ñew inshallah ah wa baxna na ngay ñew yow <laughs> inshallah acha wal waal wa di wo sama gay ñi may jappale ñep di wo wa newran bima ma yaro fa di wat wa newran di wo wa newran di woo tuubaatul gep ker la man ker tiaf ndondol ngan ngan Mbéje Sinjaan Njoobel Payen Njoobel Ngayen waa Mbangur Daaru Fay Ngas Kër Waali Kër Joomaay di sant waa réew maawo bu baax a baax a baax Sambaay Njon Parba juróom ñaari njeefun yëpp newraan gu ndaw njeneen ñu sant ñëpp di sant waa di woo waa ci la kër siñ ba di woo waa njaan waa tembo maa leen di woo bu baax a baax a baax waa jàmbaacin waa seew xama di woo waa reefan gëpp gëpp gëpp maa leen di woo waa fudaay xam nga njanjaar di woo sama dëkku nijaay waa njojom fay di woo waa Ndereb boox Ngogom ñëpp maa leen di woo fépp dama fa am ñu may bëggee di woo waa Jaxaaw Siin bu baax a baax a baax waa Ngoy Aline si la maa leen di woo ci bés bi bu baax a baax a baax ñu ñëw jàpp ci waa Tooko Mbel Tokaar Fudaay Amuteem Baako maa leen di woo bu baax di woo waa ñaaxaar tamit di woo sama grand yi nekk Italie ñoom Daawda sama tante Marème Fall maa ngi koy woo Baye Siñ Moodu di woo sama grand frère Ousmane Diouf Ousmane Séri Dié maa lay woo ci combat bi nga ñëw jàpp ci bu baax a baax a baax kooku kenn la ci man li muy def ci sama làmb amul ko koy def Ousmane maa lay woo ci combat président Ahmed Dieye maa lay woo ci combat bi maire Djib Diaw maa ngi lay woo nga ñëw jàppale ma ci combat bi Ahmed Dieye maa lay woo bu baax a baax a baax lamb ji len laa ji ñaan ñaanu ma ci xaalis bu ma kenn may soxlawu ma ci dërëm len laa bëgg ngeen jàppale ma ci transport bi ndax booy essence yi newraan gépp pare nañ te kaar yu bari laa boog ñu yóbbu ko Bambey jëndal booy ticket yu ñu dem man bu kenn may fukk yu ma naane café soxlawu ma ko man na booy dem stade Ameth Dieye maa ngi la ciy woo bu baax a baax a baax di woo sama grand Mbaye Sylla di woo waa Newraan gépp gépp gépp maa leen di woo xam nga Lamine Faye ay ñaaxarañ loo ax ma ñaaxarañ loo bu mbay guy gi maa ngi lay woo nga ñëw jàpp ci combat bi Faye CFA Faye CFA borom port Mbaye CFA borom iPhone yi maa ngi lay woo di woo sama mafia cak-cak bi booy cak-caki kolobaan yëpp maa leen di woo di woo kalandoo yi ne RTS maa leen di woo bu baax a baax baax a baax maa ngi koy teg ci loxo ndiig comprendre nga en maa ngi woo ñëpp ñu may jàppale mbay si la xam nga bàyyi laat bu mbay guy gi bàyyi laat bu mbay gi maa ngi lay woo nga ñëw jàpp ci combat bi Abdou Kosa maa lay woo génération 2001 bu Newraan maa ngi leen di woo ngeen ñëw jàpp ci combat bi génération 2010 sama maas ñooñu moom bu ma leen woowul sax garaaw di sant sama mafia bi nag boo yi may àndal waa Cheikh yàlla Karim xam Papa Faye Papis bu Baye Karim jël dem bi waa jël dem bi maa leen di woo Galas Joom yow yow kese laa ji yaa ma gën a xam bul dof yaa Omar Thiaw ak Baye Jili jalale leen ko booyi Fallou Karim Alaj Sarr xam laat bu Serigne Saliou Aliou dofu armé sama petit frère Ada Fass maa woo ñëpp di woo di ñaan woo jaakati ji ni ne ñoom Aline ñoom Tigir xam Xaadim ñoom borom Paris Mor Diouf Mortala gars yëpp ñu ngi leen di woo di woo Tala Colobane tala borom dal yu rafet di ñaanal sama gars yi nag dañoo sama booy dañoo am combat Newraan dañoo am euh, presque cinq combat Sele mooy bëre deuxième jour borom góoj bi maa ngi koy ñaanal yàlla may ko ndam Petit Kewel mooy bëre troisième jour yàlla na ko yàlla may ndam xar gi mooy bëre quatrième jour moom tamit yàlla na ko yàlla may ndam Bébé Tonnerre turandoo kii mooy bëre cinquième jour di ñaan yàlla may ñu ndam bu baax a baax a baax di ñaanal lakkale tamit yàlla may ko ndam mooy bëre raku tigir mooy bëre spécial bi képp ku ma tudd nag na nga xam ne sama xel moo fatu mais sama xel mu ngi ci ñëpp di wooxaat waa Newraan gépp gépp gépp gépp gépp waaw di ñaanal sama yaay bu baax a baax a baax yàlla yàggal ko fi mu wér di ñaanal sama papa Baye Moussa xam nga maa ngi woo waa Newraan gépp temps màgget sama yaay maa ngi koy sant bu baax a baax mama aram refan maa ngi koy sant ñoom ñaañe waa kër gi yëpp kolobaan bi fi ndax dama ñëw ñu dalal ma ko quoi ñu dalal ma yaatal ma lépp nice di sant ñëpp ñu may jàppale maa ngi sant di sant Mbaye Mbaye Coro maa ngi koy sant bu baax a baax a baax jàppale na ma bu baax Abdou Diop Boy Ndione Badou Badou aw ma sa fay barke Seydina Mohamed yow ak Cheikh Tako gis naa seen taxawaay ci man maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax di ñaanal sant waa Petersen xam nga Ousmane maa ngi lay wooxaat transport bi laa bëgg nga jàppale ma ci yow ak Amet Dieye booy ñi lee ngi naa kaar ñi ne ay camion lañ bëgg a yóbbu Bambey walu camion yi dee na ba pare xaalis bu ñu leen jox moom lañ amagul Ousmane Diouf yow ak Amet Dieye yéen laa sas walu kaar yi wallaahi soxlawuma ku ma may fukki dërëm bàyyi laat bu mbay guy gi maa lay woo bu baax a baax a baax a baax Tafa Njaan Cawe ñoom sama gaay Kolobaan yëpp Morkanga ñu ngi koy masawu bu baax a baax combat bi tey tey tey lañ ko wax ne combat bi amul te sam dimanche la waroon bëri metti na pare combat def ci li nga am lépp ñu toog ba trois jours ñu ne la amatut métti na maa ngi koy masawu di masawu adversaire am Youssou Ndour xam nga di masawu promoteur bi tamit ndax ñëpp ci ñëpp la métti waaw di ñaanal sama gaay yëpp di ñaanal waa saal bi tamit ñoom Bouba Amet di sant sama grand bee Ba Diagne kii amuñu fayam moo ñu jox mu ñuy lekk xoolal dakaar ni mu méttee xoolal dakaar Ndiaye ni mu méttee nit mbëri xoolal mbëri yor ko ni mu méttee moom moo ñu yor ndekki laajuñu dara mbëri Colobane yëpp moo leen yor ndekki Ba Diagne barki Seydina Mohamed mu ngi génne budget bu doy waar mu ngi génne budget bu doy waar dem Macky bindal la sek kon ay ñoom li muy ndekkee rek trompeur ñoom tonnerre gars yëpp billaahi moo ñu yóbbu bëri bëri di ñaanal Ngoy TV nag mhm. maa leen di sant di leen gërëm ndax yéeg-yéeg dafa fort te ki la rek moo la sonal te ñu oyof xam nga ni lii nii te yombut am na site yu bëri nekk nañ fi mhm. mais bi mooy première fois ci combat bi site ñëw seet si ma te woo ma dama xëy rek mu ne ma ñëw maa leen di ñaanal li ngeen bëgg Mhm. yéen yéen a ko xam xaw ma ko quoi fi ngeen bëgg a egg yal na ko yàlla suñu borom eggal ci darajay Cheikh Saliou suñu sàng bi maa ngi leen di ñaanal bu baax a baax a baax di wax Tidiane maa ngi ñaanal jàmm di la ñaanal jàmm yaag sa famille di ko ñaanal sa papa di ko ñaanal sa yaay yal na leen yàlla defal jàmm ak salaam mhm. dara bañ la dal nga am wér ak wérle ba ñëw bëri si ci jàmm ak salaam mhm. bu xesee dugg si nag ba ma xam ne ñëw nga ci jàmm nga ñëw xaar ma ma ah. duma la duma yu metti dem sama yoon maay sant sama fan si club bu jigéen bi. xam nga mafia tous tasar bi maa ngi leen di sant waa Jellem waa mm, am mafia Sumga. Mm. Aziz Nokia sapeur maa ngi koy woo ci combat bi Aziz Nokia Mama Lamine. ñaaxarañ loo maa ngi lay wooxaat bu baax a baax tamit. Mm. maa ngi lay woo bu baax a baax nga ñëw jàpp ci combat bi. ku dégul sa tour nag na nga xam ne xëy na rek xel moo faatu mais am na yeneen interview ci biir. dinañ ci bàyyi xel di sant Kolobaan yëpp di sant waa Newraan di sant waa Newraan di santaat waa Newraan. ayca mu ngi noonu sax incha allah incha allah mais dañuy sant itam Moustapha Tine ah muy Tapha Tine ah le roi des arènes de Bawol mu am combat MMA yi itam di ko préparé ñu koy ñaanal yàlla suñu borom mu am ci ndam. mu waaye war a war a dem euh, France bérëjee itam moom itam. am combat MMA suñu grand suñu idole Tapha Tine kooku mooy suñu lépp ci làmb moom mooy moo ñu uuf ñun ñëpp di ko ñaanal combat boobu mu jëm yàlla na ko yàlla suñu boo may ndam te wax gaay yi nag nañu ko jël dafa jot bawol am roi des arènes te barki Seydina Mohamed li yàlla may bu ko nanguut Tafatine day jël roi des arènes na ko gaay yi jël mu nekk roi des arènes ñun mbëri bawol yi mën firi di dox nuñ neexee ci mbed mi instant pare na fépp pour tee bi maa koy woo nag mu jëlal ma ñaari kaar ma yóbbu ko Bambey Tafa maa lay woo ci combat bi yow ak Ndiaye dina ko dégg maa lay woo bu baax a baax dama koy dag sax yónnee ko ko nga ñëw jàppal ñu ci combat bi ah. ndax Newraan Touba ah. Toul wallahi azim combat bi nii mobilisation bi ni gars yi ni ñuy paree ah. booy ni ñuy paree dem Bambey foog ngeen jàppale ñu ci transport bi ndax lamb léegi dafa metti mm-hmm. dañuy dem ba waa yaa ma gën a xam ni muy demee mais man leen laay ñaan mooy ngeen jàppale ñu booy yi ñu dem stade ndax boobu fekk na école tij na xale yëpp am nañ temps demuñu dara te ñëpp ñu ngi pare lamb ji grand combat armée bi ñu ngi koy waaj Bambey. lijjantil leen makaar yu doy bu dee camion ngeen lijjantil ñu ko ñu dem Bambey. ndax promoteur bi dama ko bëgg a bor. promoteur bi dama ko bëgg a fay ba wis ko barke Seydina Mohamed. dul ma gën a gore. mbooloo mu bëri laa ko bëgg a yóbbu incha allah. acca mu ngi noonu ñu nit kontaan nañ ci yow bu baax a baax a baax wax dëgg fa yàlla ah, di gërëm ñëpp di gërëm waa bi ah. di gërëm ñu ngi leen di sant yéen ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen waa Ngoy yéen waa àdduna képp koo xamante ni abonné go rek dawal si Ngoy TV nga dem abonné nga mën di seetaan lu ñu mën di dugal nga dem seetaan ko incha allah c'est meilleur leen di ziar di la ñaanal jàmm te di ko sàkku si yéen.